ça ça va bien si jàmm ba waaye. bi véhiculé partout dans le monde Mamadou Lamine jaaw mooy ki rey Abdou Aziz jël sa photo taf ko yaakaar naa loolu jëli gën koo rey. effectivement effectivement <clears throat> waaw comme vous allez toujours dire rek maanaam affaire bi euh, ñun kaw la ñu dikkee tout le monde ici dans la famille parce que ñun ñoo ngi toog le matin man maa njëkk a génn nekk si biti ndekki vers 11h yor sama téléphone nekk sur Facebook bon ma gis euh, Seneweb dugal. bi Seneweb dugalee ñu ne euh, bon meurtrier wu Aziz Dabala bi arrêté nañ ko à précisément bon mi ngi jannatu mu ngi tuuba commissariat bu jannatu bon automatiquement ma dugg si kër gi parce que sama ñoom maam fan yëpp nelawuñ ñu ngi si kaar bu xëyee maay taal télé bi jàpp YouTube maire di seetaan di xool waa kaay fi mu toll comprendre nga ñu xool avancé enquête bi bon ba ma ñëwee ma gis leen ne leen waa ji de arrêté nañ ko mais bon ma xaw a ree ñoo bokk tur boo ko sant moom la mel jaawalu tudd mais moom ñu ngi koy woowee Modou Lo te maçon la heureusement te ba pare ginnaaw raay la dëkk en plus xaritu Aziz la ci liñ bind information joxe bon noonu laa si noonu laa si mel ba gars yi di reenaan suñu sañoon de doo leen bokk parce que boobu xamuñu affaire fu muy àgg après loolu démb la vers 14h euh, bi ma ndekkee ba teg si mbedd bi après ma ñëw fii vers 14h bon bi ñu añee sama grande sœur woo ma Fama Diaw de comico ne ma moo gis nga sa non waaye ma ne ko Fall man nekk ma nekk ma yaakaar daf may mbala quoi ma ne ma retaan ma billaay ret sa waat ma ne ko ah bon sama beneen frère moom rakam kapi envoyé ma capture bi mooy passe bi ko def ok bon ma xool gis ne man la ñu posté sama photo boo xam ni ça date de trois ans même parce que benn tabaski woon yàgg na photo bi man déjà je ne l'ai plus yoratuma ko bon ma xool man waaw man kan moo war a envoyé li ma du kapi envoyé ma lien ku ko def muy galas 775 xaw ma ma dugg si page galas boobu bon j'ai vu euh, le poste ma commenté wax ko ne ko bro sama photo nga dugal kee ñi ngi arrêté nañ ko mi ngi commissariat bu jannatu lañ wax xaw ma waaw je pense jannatu man maa ngi suñu kër plan jaxaay toog ne ko man caaroy sax suñ kër caaroy gëj naa fa après tabaski c'est-à-dire man gëj naa zone boobu ay caaroy Pikine genre et tout liggéey laay def sama cabinet d'avocat bu sama tonton fa laay xëy en tant que clerc te géejawaay la nekk géejawaay la nekk man doo gëj naa Pikine caaroy ginnaaw raay et tout quoi. baax ba wax waa ji ne ko nag dinaa porter plainte bon. après ñeneen ñi dugg ne waaye dafa mel ni dina vidéo bi ñi suñu waa kër panique am gars yi ne moo donc <clears throat> est-ce que doo def vidéo leeral ma ne leen non maître ne leen jëleen seen temps rek maître parce que maître na cybercriminalité ne ko donc lundi dinañoo def plainte et tout ñu xaar léegi nag affaire bi ndekk àgg na ci Adamo vers 17h 18h sama même grande sœur bi owaan ma ne ma mu instant yi Adamo si yow lay def live ma ne ko live mu ne ma waaye ma ne ko ah bon bon ma dugg bi may dugg noonu parce que dama doon may xar yi xar également ñu lekk bi may may xar bay dugg gis ne Adamo live am jeex na il y a 15 minutes xaw ma 17 minutes côté yooyu bon mais teewul foofu vidéo mi ngi fa woon bi ma xoolee j'ai vu que ñuy wax dugal sama email ma partage ne ko man Fall yow mën sama photo nii de ma gis yenn gars yi sax di commenter naan naan massa ñii dañuy ñëw ak dugal lu ñu am leen leer quoi di wax après nag mu supprimer ko heureusement. Adamo heureusement jot nañ ko fii téléphone fii si salle bi maitre am na ko mu woo kooku woo Adamo ñu def fii appel WhatsApp ñu ñett ci bi. bon wax ko man ko sama photo nga dugal sànq donc dama bëgg ni nga dugalee sama photo wax ne sa dire euh, kii la dañuy wax moo rey Aziz nga defaat la même chose dugalaat même photo bi waxaat ne loolu intox la du dëgg fake news la comprendre nga après wax nañ loolu mun ma donc kon guddi dinaa la dugal sama live démb bon bi mu coupé loolu fekk na affaire bi commencé viral nag sama benn xarit Evaristo Gomis ne ma moo am na de sama benn xarit bu ne France comme yow rek sa xarit statut ma ne ne ne par exemple euh, tueur en série <laughs> tueur en série la waa ji bind ne je vous jure après Ristu nee na Ristu nee na man maa man maa ñëw euh, comment ne grand kii ne ko ne ko bro kii sama xarit la kii maa ngi moom boo bokk koñ Caaroy ñoo jàngandoo déjà Eva moom am na maîtrise en sciences juridiques man dem naa ba maîtrise aussi def naa sax sama maîtrise ba pare en politique commerciale internationale PNCI comprendre nga donc euh, Eva noonu la ci toll affaire bi def na viral na ku nañ ci wax tueur en série kii moo rey Aziz man tamit bon ñu def vidéo démentir ba ci même ay live YouTube yu siiw ñoom it def nañ ci video wane ma sama image terniru ku ne di ma oo fu ne de partout ku ne naan moo sa photo sa photo daal taale woo dama tiit lekkuma parce que pour man yow la comme am na nga rek mais nag bon ñun loolu lañ ci toll voilà. man en personne man en personne mën naa ni mën naa ni jeune moo na parce que man xam naa le am comme je t'ai dit man je travaille avec mon oncle moom lui c'est la cour comprendre nga. donc ñun xam nañ bu dëgg maanaam comme ñoom ci yoon lañ ne comment nga baax yoon la ñuy àtte moo tax man xam naa li xew en réalité xam naa ne sagam ci yoon man ki may liggéeyal ci yoon la ne te ñun ci yoon la ñuy liggéey donc lii peut-être mën na nekk intox nekk fekk ni ñu nit wax mais si bu dee cadre yoon man ma ci am problème moo tax méttiwu moo tax jeune ma que maa ngi ataaya ah li muy ngi ataaya c'est que danger la ñëpp a ngi wax xoolal vidéo image bàyyi nii un tueur en série ñuy wax ce que man maa ngi woon ci danger noonu laa ko dundee maa ngi ci danger et je le savais même si man suñ man suñu waa kër ñoo ma gënoon parce que ñun ñëpp fi lañ toog si bi ñii si fay man maa ngi fee ataaya teg sama ataaya xel leen ñuy naan gars naan li wóorul parce que mën nañ gis sa image heureusement nekkoo Touba sinon puisque kon nee mi la mën nañ la gis rek attaqué la et c'est vrai même c'est vrai parce que sama photo la même si am na différence un peu mais gisee da ngay ne kii la boo xoolee nit kaa nekk bu ma fekkoon Touba ou aux alentours de ginnaaw raay mën nañ ma attaqué bon balaa ñuy xam ne erreur la ak du moom fekk ne dee naa bu yàgg ah fekk xëy nañ moom c'est ça. mooy nan lañ def am sa photo parce que d'habitude sa photo ku la jege. mooy mën a jël ko nit euh, nga yaakaar ne yow ci sa xel lan la la jox ne ñoom nan la def ba récupérer sa photo boobu. loolu nag mooy la grande interrogation loolu mooy mooy question bu mag bi quoi réalité parce que comme je vous ai dit tout à man photo bi photo bi man yoratuma ko sama téléphone déjà téléphone bi ma ko yoroon xamatuma sa anamu. xamatuma ko dèjà parce que foto bi yàgg na am na trois ans minimum minimum quoi parce que tabaski la woon yére bi yére bi ma ci sol yére bi jotatuma c'est que bi dëkk photo bi yàgg na bon xam nga na comme li ma wax tout à rek man am naa page Facebook am naa page TikTok am naa page euh, YouTube non pas YouTube mais Instagram mais amul benn réseau social boo xamante ne si nii man en tant que Mamadou Lamine Diaw sama prénom moo si nekk ba pare ma poste sa photo boobu noonu photo boobu noonu. amul si sama benn réseau social TikTok amoo photo man dama paase sama image bëriwul TikTok amoo photo Instagram amoo photo euh, Facebook comme Facebook yàgg na ay jamono la Facebook daal laa am photo de profil ak quelques photos te Facebook dafa yàgg moo tax. mais bi jamono commencé dugg internet yaatu TikTok am man dama commencé daw internet quoi ñemewu ma ko noonu moo tax dugal ma fenn sama photo new fa. donc photo boobu noonu ki ko yor peut-être peut-être parce que tabaski la woon tabaski da photo wu envoyé say xarit say nit comprendre nga ñu statut waat la comprendre nga nga gis ko gis ko capturer ko denc ko mais photo nii di wax ak yow amatuma ko am na ñooy wër sama entourage amatuñ ko donc xaw ma fan la jógee mais néanmoins ki ko ki ko ki ko boobu wax boobu ba tey maa ngi koy wax ci interview Mamadou Lamine noonu ñu mën dëkkal si kër gi fii nii am na ñoo xam ne démb lañ xam vraiment que loolu laa tudd parce que ñoom Mamadou Diaw Diaw en fait Diaw mooy sama vrai nom en réalité Diaw mais Diaw moo ne samay këyit muy sama carte d'identité muy mes diplômes kër fii rek xamuñu Diaw boobu mooy sama nom de famille comprendre nga caaro yi également bi nga xam ne fa laa yaroo màggee fa jàngee fa ba par université sama côté kër xam nañ ko en xam nañ ni loolu laa tudd maanaam Diaw bi sax am nañu ko fa desee xam moom la mel Diaw bi comme ni mu wóoree noonu comprendre nga donc ñi ma xam mais si côté jàng laa xamoon tuddee côté administration ñoom ñooy yor xam yor samay carte d'identité wala ñu dox ko classe ñu rappel nit mu Lamine Diaw nga ne wii comprendre nga université ñooñu rek ñoo xam tur boobu noonu ba pare yor photo bi ne kii mooy Mamadou Lamine Diaw et c'est vrai Mamadou Lamine Diaw laa tudd. c'est vrai parce que li xam Lamine Diaw bii nii ma xam yàgg ak moom moo nekk nii. comment baax parce que fa li nga ko am te yow doo xam sama vrai tour fa laay waxee quoi moo tax ma ni soit comprends nga c'est-à-dire yow booy booy douter peut-être si ñu zone boobu ngay douter fa fa ngay douter ah c'est milieu fa ngay douter parce que mënoo jàpp ne comme ay mbedd yi sax nit ñi xamuñu moom Lamine Diaw mooy sa tur mën nañ yow foto bii rek mais ñoom pour ñoom sax Diaw laa sant Modou Diaw lañ may wax Modou Diaw nga

photo bii ngeen dugal te moom amul dèjà moom moo moom rek moom rek moo fexe ba woo ñu fi ñëwoon démb parce que moom moo dugg seen page wax menacé fa def ay commentaire maa gis également ci commentaire yi gars yi di wax ñu ne bul bàyyi porter plainte et ils raison parce que xam nga dafa yomb quoi dafa yomb dafa yomb man maa ngi doon nekk si danger comprendre nga dugal image nit dugal photom mën naa génn tey heureusement fi ma nekk peut que amul rapport rek ñi dëkk ay ginnaaraay yooyu mais imaginez ma dëkk ma nekkoon aux alentours de Thiaroye Thiaroye ginnaaraay soxantewul comprendre nga di dox ay taliba gisanteeg ñenn ñi nga xam ne dëkk nañ ginnaaraay ñu ni kee lañ dugal foto mais dañuy dar sama kaw rué sama kaw sëkkatoo ma def ma li ñuy def comprendre nga wala ma nekkoon Touba hmm? ñu def ma fa li ñu may def donc euh, danger la man du ma comme danger boobu xes nañ ko am na ku ko génne photo boo ko si man donc man dinaa topp source yi ba nga xam si kooku yéene woon ma loolu kan la ak lan la si jublu ak parce que ku la yéene pour ñu dugal say photo ñu parce que gars yi naan kuñ ko xamee ko rey nañ ko rey kon moom yéene na ma ñu rey ma donc moom su amee occasion bi mën na donc ñun dinañ remonter source yi def suñu plainte xool aussi lu ñu yoon may bu ñu ko mënee traqué bu ñu ko mënee tracé ba xam kan la aussi après ñu dem devant la barre ñu leeral ko rek wax lan moo taxoon mu publier samay photo Mhm, mën naa xam porte plainte bi da ngay koy yemale ci ñi publier photo yi def ci ay live wala da ngay porte plainte x pour en cas ëllëg ki jëf-jëf ci itam bu feeñee te nekkul tax koo xam ne day def ay live ndax ñaar bu nga ma xam ban nga ci porte plainte bi waaw concernant plainte bi ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan mën nañ sama ndijaay moom mi nga xam ne mooy liggéey si yoon ñu xool ban genre plainte la ñuy formuler voilà ci lañ nekk bon ñu ngi ci waxtaan façon demain incha allah demain dinañ jëm dem cybercriminalité déposer plainte bi mais pour l'instant defaguñ ciblage quoi ne kii ak kii wala telle personne wala telle voilà wala chaîne bi wala tiktoker bi defaguñ benn ciblage mais façon ñu ci décider rek moom sama nijaay dina ko def après ku si bëggaat am information tamit boo ñu seetee dañ la jox information dañ wax ñan ak ñan ak ñan lañ plainte. jàppoo tam kii mën a génne tur boobu ak photo boobu tam bu feeñee tam mu mu nekk ku la jege entre côté famille parce que am na ci xam tam ku la jege moo koy mën a xam de.

donc ñi ma xam bëri nañ te dañ dañ koy tuddee ku la jege c'est vrai que ku ma jege lay doon parce que moo xam man sama vrai tour ba pare xam ne kii mooy lii mooy sama photo donc c'est une évidence quand même ku ma jege moo def loolu donc du nekk étonnement du nekk étonnement bu ñu defee plainte ñu remonter source yi ba ne kii la du la bett du la bett parce que de toutes les façons ñun déjà maanaam mm, njortu nañ ko suñu entourage ba pare. mën na see ñàkk quoi njoxtu nañ ko suñu entourage bu pare. nga ko seen entourage am leen loo xam tam mi ngi ci tam mooy ñu gis vidéo yi mi ngi viral di wër àdduna ñenn ñi donte yow. ma siy lancé également benn alerte maanaam képp koo xam ne defoon nga benn vidéo boo xam ni voilà zaaru dañ bon dañ may incriminer wala ñu may euh, inculper ci loolu wax ne par exemple man maa en fait maa bon rey Aziz Dabala. parce que man. rayu as ñaar nga rek. tegu Touba heureusement récupéré wéef récupéré wéef. waaw néew ma Touba. et puis da ko doon ñaan paas mu bañ. carrément carrément nee dafa appartement am da ko ñaan heureusement sax xamul choisir daal dafa laa lancé benn alerte di leen wax également nañu dindi poste yi parce que tamit d'ici d'ici jour bi ñu déposé suñu plainte. Hmm? demain après demain kañ lañ ko déposé vidéo yi buñ ci gisaat boo xam ni yow suñu imam ma fay feeñ plainte mën nañ la si dugal parce que ba tey yaa ngi ñuy donc kon bi ku jàpp nga ne loolu mooy la am maanaam ku def vidéo wala nga def live wala nga def post boo xam ni sama image moo si ne nga ni le meurtrier d'Aziz Dabala et de Wally Seck Wally je ne sais pas encore moo nekk nii te dindiwoo vidéo bi ci bi ngay gis lii nii même à l'instant bi nga ko gisee à l'instant boobu nga ko gis suñu suñu suñu alerte bi te dindiwoo ko boobaa ñun bu ñuy plainte plainte bi dina la laal donc euh, lan appel bon alerte boobu laay wax ñi nga xam ne yor nañ vidéo yi dugal nañ ko seen live muy TikTok sur YouTube partout parce que man ñi seet am na yu ma si yor yu bëri ah am na yu ma yor ñu capturé wan ma ni ma koy gis ñoo xam ne dugal nañ sama image donc alerte naa leen képp koo xam ne yoroon nga sama image bu ñuy waxee que man maa rey nga dindi ko sa sa page que ce soit YouTube Facebook euh, TikTok mu dañ fa parce que tamit xam nañ internet dafa yaatu te lu fa xës dugg am na nu muy am na nu muy virale rek du dañati lu dañati quoi donc man appel boobu alerte boobu laay lancé ñi nga xam ne dèjà jotoon nañ dugal ba pare. nga waxaat lan tam ñi nga xam tam def jotuñu ko def te suba mën nañ xaar defaat live taf sa photo nga waxaat leen lan ku ko ci def lan moo ci mën a fekk. waaw non loolu kay c'est loolu moom li gaanan biti la fanaan non ku defaat live teg sama photo loolu plainte da la fay fekk loolu yaa même pas photo yaa même pas photo citation directe lañ lay door sax citation directe ngay am donc euh, képp ku defaat live hmm, ñëw par exemple dëgal nekk kii mooy la meurtrier d'Aziz Dabala et de Wali Balde yow jàppal ne maanaam jàppal ne yow à l'instant même à l'instant même citation directe bi nga sa kaw jàppal ne foo mënti nekk déjà yaay dinañ la ñëw dinañ la dinañ la ñëw auditionné la wax la par exemple yow man preuve nga am de ba ne man maa rey Wali Balde te muñ demee devant la barre di ko leeral d'accord sa yaay su su famille bi nan la ko doon dundee parce que ku jiiñ sa doom ni moom moo rey nit ak ñi bakkan mel bu doon sax benn mais ñaar ah, ñoom nan la ko doon dundee ñoom stress boobu waaw fii nag c'était euh, panique moo fi amoon panique <laughs> fii panique moo fi amoon comme loolu la wax rek ñoom ñëpp. yaa nga rek ku ñu ñaari bakkan di nga ñàkk moom. ah na si comme ñoom kër gi fii danañ ko dundee danañ ko dundee ñoom ñoom ñëpp toog fii nekkuñu nañ def live nañ def bon vidéo dugal tasaare ñëpp gis ko comme ñun aussi nañu nañu démentir parce que tamit kii di rien consent kii di rien consent bi wax ji commencé woon bëri démb. bon ñun ñu toog rek suñ coin ñu deful woon vidéo génn dañ naan kon dëgg la kon ba tey nii dañ naan booy boobu la de ba tey nii suñ deful woon benn vidéo démentir ma toog rek di leen déglu dañ naan kon noonu la donc ñoom tamit panique boobu lañ ko dundee parce que bëggoon nañ kut ko kut man ma génn leeral ba sama grande sœur bi ma woowee fii ne sama grande sœur amaa mor crosé ka kër ñu ngi yuuxoo ñun dinañ def vidéo envoyé leen yéen ñëpp comprendre nga donc panique panique muy fii di sama côté kër papa parce que ñoom tamit nee nañ voilà démb sama turando rek ma envoyé message sànq di ma ko wax démb ku ne ngi wax ku ne ku ne fu ne fu ne lay recevoir appel fu ne fu ne li dal mut parce que dañuy bëgg information tamit xam nga Sénégal moo mel noonu dañuy bëgg mu leer ñenn ñi dañuy dañ lay au dañuy bëgg libéré parce que dañ naan waaw sawaay moom lu ko dal comprendre nga bu baax dañuy bëgg libéré wu sama muy samay proche di samay ami di sama famille ñoom ñëpp panique lañ ko dundee ñoom ñëpp mën naa ne man même dal sax man maa si gën a man maa si en fait man la man bi gën a si man la gën a apaisé wu quoi que si ñoom voilà man si man xëy na lii lañ xaw a tane nii rek instant bi nga xam ne vidéo yi ñu commencé génn voilà ñuy ñuy démentir la tane si ñoom mais démb démb ñoom ñëpp kenn nekkul franchement. d' accord nga waxaat lan euh, ñi nga xam tam ñeneen ay journaliste lan est ce que un journaliste tey war na véhiculer message boo xam tey amu ci lu ko leer ba taf ci ak live ni mu doyee waar tey nga waxaat ko lan parce que yaakaar naa un journaliste tey warul def erreur yooyu. si si si live yi nga sa bopp si commentaire man na commentaire bu bu ne un grand journaliste balaa ngay def benn benn benn benn balaa nga joxe benn info bu dee journaliste nga bu ma nga nga wax de wax nga def des investigations bu dee yow yaa ne bu ma nga ko loolu rek démb am na si commentaire bu ma ko gis te wax na dëgg donc man loolu laay waxaat rek di lancer journaliste yëpp Sénégal nag bon c'est le Sénégal ah. ñun xam nañ lépp xam nañ lépp copier coller moo fi am maanaam kii dugal na rek. kii nee kii la rek après man même image laa dugal ko ah xam duñu investir en fait. ak njëkkante ma am kii voilà voilà maa ko njëkk a wane comprendre nga ampleur bi am gars diw dugal na diw parce que ñëpp photo nit ki lañ doon xaar ah nit ki lañ doon xaar. comprendre nga donc euh, di teel a rek maanaam dañu koy jaral dañu koy jaral comme yaa xaset bëgg a choisir journalisme ne li laa a def mais da sur le terrain def des investigations sonn ngeen ñëw ngeen ba fii jël ngeen seen koy jar en réalité mais bul dégg maanaam bul dégg rek quoi ay dégg naa diw nee na diw nee na après nga ñëw ci di commenter di dugal ay photo di wax loolu journaliste mag du ko def quoi en fait loolu pour man pour man ñi nga xam ne ay liveur lañ tudd xaw def ñu dara pour man loolu noo war a def loolu ñoo war a dugal ay photo parce que ñoom loolu lañ leen sos parce loolu sos la en réalité diffamation la mais si wàllu mën nañ ko tuddee fi jàmbur te dara leeru un vrai journaliste pour man warul fonctionner noonu quoi war nga dem sur le terrain def des investigations am des preuves tangibles doogaay divulguer information quoi man laa gis. d'accord jërëjëf kon ñu wàcc suñu kàddu fii mais. c'est vrai mais bon ñi de si ñi si ñi seen bakkan fa la ñu waroon jegee sax ñaanal leen mais bon du wees de toutes les façons ñu ngi leen di ñaanal parce que même rob bi rek rob ñoo ko seetaanandoo fii ma ñu dem ci fii lañ toog di seetaan sama maam mi ngi jooy sama maam. fii la toog di jooy wallaahi bi ñuy seetaan rob bi man maa ko jàpp sur YouTube bu ñu xëyee dañuy toog di seetaan parce que ñun dañoo bëggoon mu leer maa ko toog fii sama maam sama tante fi leen toog ñëpp kenn waxul seen rogoon ci toog bi ñuy seetaan rob bi est-ce que ko xam bu baax donc euh, euh, di leen ñaanal yàlla parce que tamit ay jullit lañ te ñun jullit moom voilà ñun maanaam maanaam islam umma la ñun jullit yëpp ñoo bokk islam seen communauté donc euh, jullit bu génn àdduna sama morom jullit ñaan la la mënal wax ci yow lu baax donc di leen ñaanal yàlla yërëm leen jéggal leen parce que bu leen yërëmee rek jégal leen donc euh, mën leen a ci aljana yu kawe ya maanaam maanaam seen euh, ñun ñëpp daal nañ njortu ne rek waaw comme li gars yi di wax rek maa ngi dégg ñuy wax comme peut-être ñi jàng ñi nee nañ kuñ ku ko xam dañ laa dañ dangaa dee dañ laa rey woog donc yow aljana nga jëm donc yàlla loolu yàlla nekk dëgg comme ñoom loolu seen man peut-être aw ma aw ma xam-xam boobu mais yàlla nekk dëgg voilà donc ñu yeewee ji aljana tamit euh, voilà seen seen seen seen i famille également ñu leen di ñu leen di tamit encouragé pour ñu voilà ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñu mën a dund situation bi mën ko xam naa nag du yomb parce que tamit am nit mu nekk soutien de famille dégg nga ñuy wax ay séeram bi doon wax moo a jox paasu màggal comprendre nga soutien de famille la donc euh, di leen ñaanal ñoom it ñu am xol muñ comprendre nga yàlla taxawu leen bañ mën a dund situation bi ci jàmm salaam voilà mu jeex ki nga xam ne tamit jàpp nañ ko comme ni nga ko laajee sànq ki nga xam ne tax jàpp nañ ko ci lañu wax image je sais pas ma nag ba xam dañ ko war a wane xaw ma waruñu koo wane franchement xaw ma ba xam ne la procédure enquête di demee xaw ma daal ki ñu jàpp ki nga xam jàpp nañ ko ah nañ ko teg peine bi si war quoi vraiment parce que tamit moom rey na ba pare nar nar naroon reylu ñeneen. naroon reylu ñeneen naroon parce que parce que dugal nañ image ay nit et je suis de je suis pas le seul man sama frère na ma beneen moom Lamine Dia buy def ba tey ay vidéo xam nga man am na kenn je sais pas je sais sama frère moom ma ko envoyé. da ngay fexe ma am contact am rek parce que tam ku ji ni rey nit moom ma tamit mi ngi nekk fii moom it di def ba tey di démentir parce que moom la doon jaaru tudd te ñu ngi mas ñu ngi nga bu baax moom la ko nañ ko teg peine bi si war man je ne pas être là naan comme ni koy di waxee peine de mort rek non non loolu ku ne sa xalaat ngay wax man sama xalaat mooy nañ ci teg nañ ko nañ ko nañ ko teg charge si war peine bi si war ni mu tëdd ni mu war a tëdd na ko tëdd moom bu dee complot la association malfaiteur la ñoom ñëpp képp ku si laale na nga tëdd peine bi si war parce que tamit mën na leen fi bàyyi ñu defaat la même chose taxal ñeneen reylu ay nit il faut mu leer quoi il faut mu leer. jërëjëf Mamadou Lamine Diaw la ñu si. vraiment seen professionnel lañ pourtant ba tey ba man dama ko doon seetaan sax dama ko doon seetaan je pense que yéen a bi de voilà famille bi oui famille booy bi c'est donc si yéen laa xam nga tamit te si yéen sax laa amee information yi leer de bi toog bi kër ma ne sama ñoom maam seetaane sama maam kaay xool ndekete yoo dañuy wax ay xale bi 17 ans la am xale bi diwa ko yar rek ndekete yoo xoolal ne ko kaay saan bi ñii wax nañ la am lépp maanaam nga ñu bëri relaté nañ la parce que dañuy dégg rek ne tamit ñoom it waxal la même jaral ngeen dem à la source comprendre nga jëli information bi nga xam ne mooy buy dëgg bi ñëw partagé ko nit ñi comme ni ngeen ko defee fii nii tamit xam nga yéen ba tey am ngeen ah, am ngeen seen YouTube ñëpp ngi leen di seetaan mais ba tey dugaloo leen photo donc ce qui veut ngi liggéey ay prudence ak ak ak ah. donc yéen noonu ngeen liggéey en réalité donc yéen ñu nekk seen boo xam ne bon vous êtes à remercier man moom su ma duggee YouTube léegi dinaa dinaa aussi poster sama sama sama sama WhatsApp. ñëpp li baax Dakar Buzz koy wane. waaw c'est ça c'est ça. wóor ba. <laughs> c'est vrai c'est vrai loolu loolu leer na fii nii donc euh, man sama entourage képp koo xam yaa ngi gis sama TikTok sama papa naan TikTok sax WhatsApp parce que man TikTok moom mooy loolu. dinañ dem abonné Dakar Buzz seetaan vidéo yi donc pour mu am information bi leer na ñëw Dakar Buzz yéen je vous remercie parce que tey yéen a ngi génn leeral sama image wane ne kat les erreur la woon intox la woon wax yu wérul la woon li wér mooy lii. kii n'a rien à voir avec ce crime ñoo bokk tur il n'est un maçon man ni ma ko mën a wax sànq j'ai fait les sciences économiques et de gestion am ci licence dem maîtrise def politique négo et négociation commerciale internationale dem ba master 2 jeexal ko comment nga bu baax en 2021 ou 2022 je travaille comme clerc dans le cabinet d'avocat de mon tonton là fa laa nekk donc man je n'ai rien à voir avec maçonnerie je n'ai rien avec ouvrage donc euh, loolu la quoi di remercier comme ni ma la Dakar Buzz vraiment voilà vous êtes des franchement.